pour ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy saalum Saloum mu nekk koo xamante ni nag kenn ko présenté ci làmb ndax nee naa leen borom kuur Baye Fall yi wax dëgg yàlla temps yooyu moom kuur Baye Fall mi dafa safoon torop mais léegi moom kuur Baye Fall dafa mel dafa sedd kenn gisatu ko sax mais Saloum ñu gis ni li nga expliqué yëpp palmarès beeg parcours bi yëpp di nice nga dem écrit Père Birahim saa ko xam-xam. Mhm. tàq ànd ak <coughs> loolu yow Moussa Dioum ak Pape Modou Lo mm. nekkoon fi di toj mën ngaa ñëwaat ci moment yooyu noonu ak euh, temps yooyu ngeen nekk sax xam-xam mm. mën ngaa ñëwaat ci moment boobu noonu waaw yooyu euh, dafa nekk Père Birahim euh, Sénégal mën naa ne ne kenn dàq ko ci bëre te kenn gënu ko ci xol mm. dañu yéene woon daan tëdd ba quatre heures du matin sax moom mu tiit ci ay nelawam ngir ndax moom dafa bëgg ndam et Birahim nitu ndam la daa bëgg ndam fëgguñu ñu téléphone kar kar jóg leen heure bu ne dañu koy yee di ñu entraîner boobu entraînement ak déggoo xol yi ànd moo ñu mayoon loolu waaw parce que boobu ñu ngi entraîner man dëgg dama daan entraîner bay wocc mais duma yërëm parce ba léegi da koy wax nee na Saalum lu ne mën nañ ko ko waxal mais entraînement du ci daw waaw dama bëgg entraînement te dama ko mën dama ko gëm te dama bañ defet saay ma daanoo damay jooy ndax bëgguma ko mu doon père bu baax ci yoroon ñu yor bu rafet vraiment barke Seydina Mohamed man jàppewuma ko comme làmb pour man moomu jur dama ko jàppe woon comme sama papa bu ma jur. Mhm. ma koy ñaanal fanam gudd wér gi yaramam lépp. Mhm. vraiment ba nii may wax ak yow dañuy wootante téléphone dama koy seeti sama papa la. Mhm. waaw. mais gisoon nañ ko ay temps mu lay crash. Mm. parce que euh, nee na yow yow léppam nga parce que gis nañu Père Ibrahima fi nga tegoon. nee day jékki-jékki benn instant wax nga ko ay 5 heures du matin mu yee la ànd ak yow foo xam ni yéen ñaar doo nga fa nekk. Mm-hmm. parce que yéen bi mu amoon ci yow. Mm-hmm. mais nee na après yow da nga koo wor. wor bi nee na da koo wor parce que parce que da ngay dégg sa père naan mbër day wor. Mm-hmm. mais ñu dégg ko muy cité ba tudd la ci. ne yow da nga koo wor dem ànd ak ki nga xam te ni moom mooy père Babou. ak seen relation ni mu demee woon. foofu moo indi suñu erreur te man jàppeewu ko war. man pour man parce que sama lépp moo ko yor moom moo toog ba mu neex ko mu ne moom ménager bi da ci sonn quoi bëggatul nekk ménager. boobu que amul am na loolu dund déedéet boobu moom moo bëgguloon moo bëggoon bàyyi ménager. ku ne mu delloo la sa licence. ne dem leen ngeen uti ménager. man nag ci lu ma jàpp si laa woowee Mbaye Thioune ndax Mbaye Thioune tamit sama papa laa ko jàppe woon. moom mosoo nekk sama ménager bi ñuy xeex mbaru démb yi moo taxoon ma jël licence bi ci moom jox ko père Birahim kon bu ñu nekkaatee ci jàmm ma jëlaat licence bi moom di ko ko delloo mu ne noo essence yi moom waaye Ikiri Bawol rek la yor mënatul yoraat beneen mbër bu bokkul Ikiri Bawol mais ji wool père Babou moom boo ko wooyee mën nga ko jox mu ménager la. man xaw ma woon diggante père Babou ak père Birahim dafa ñagas xaw ma ci dara mu jël sama licence yóbbul ko père Babou looloo indi problème bi. Mhm. bi ma ko yóbbulee père Babou père Babou signal ma komba yaa yaakaar naa ci xaalis bi di reliquat bi père baabu daa am lu mu ko doon jox jox ko ko man man loolu la yaakaar naa fa la bi jóge mhm. mais man jàppewuma ko wor ndax bu ma delloowul woon licence bi ne mu utal ménager loolu yëpp du am. waaw te bu ma woowoon sax ne ma pour ki nga jox ménager bi maa moom neexoowuñu dinaa woo père baabu jëlaat ko te ñagas ñagas du ci am. mais ak dama ñëw rek mu ne ma noonu non baabu waaw nii nii kennal sama yëkkëri man loolu laa ci am. Euh, euh, loolu moo indi problème bi. mooy. bi ma ko joxee père baabu après maa ngi bëre naa fa mais bi ma bëree ba combat bi jeex ci problème mu xaalis mook père baabu moom si lañ merentee xam nga ba mu merewaale ma ci sax ne ma waaw comme père baabu mu nga àndal waaw léegi sama yikiri maa ko moom jógal sama yikiri ma am ma jëlee fa jëlee bu rafet ñëw këram waxaa moom mu kii ma ne man nag mënatuma dellu benn yikiri damay delluwaat fi ma jóge ma ñëw si laa ñib si HLM mu signeel ma ma jëlaat ñëw HLM. Ah, am na solo mais tey ah, Père Birahim yéen ñaar di ngeen dund yéen ñëpp. yéen ñaar est-ce que tey nga jóge école boobu dem joindre ak beneen parce que gis nañu dip ba nga fa jógee ba léegi da nga nekk ci tolof tolof. Mhm. ndax gis nañu Saalum yow wax naa ko sànq yow ay ñoom Balla gay fi ñu toll Saalum waroon naa moo toll foofu. ñu mhm. gis ni Saalum dafa retard trop trop trop ak ndog ndox yi am sa relation ndax gis nañ ni benn instant boo xam te ni Saloum da koy gis tey bu subaa doo ko gisaat day raar ci làmb ji ba say supporters yu bari ñoom loolu dañ koy reproché euh, Saloum mën nga see leeral tuuti. waaw li ma ciy leeral mooy ñoom Balla Gaye dañoo am ji dañu am jàppale man ci digg bi laay jaar ndax ñoom fi ñu dëkk dañu gëm làmb dañuy dundal làmb ñun nag fii suñu gox amuñu ku ñuy jàppale. maire yi ak bi ci boppam du ñu jox servation xamul ndax mbër yi ñu ngi ci lenn gëmul sport xamul lu mu gëm boppam amul kenn ku ñu jàppale ikir HLM benn président bi muy Adama Sène moo ciy sonn di dugg fu ne te mag la li mu mënoon mënatu ko amuñu ku ñu jàppale boo demee Pikine maire yi beeg ñëpp dañuy jàppale ikiri Pikine boo dee Géejawaay Gakou ñëpp dañuy jàppale ñoom Aziz Ndiaye ñëpp dañuy jàppale mbër yi fa nekk ñun fii suñu gox amuñu loolu kenn jàppalewul benn mbër ku ci ne fii sa bopp nga tal te làmb du benn nit man mbër mënuma nekk di entraîner pare di daw dépasse di wuti gàllaaj di defi loolu day métti day metti bi may nekk ci Père Birahim lu mu bon bon parcelle maire bi fa nekk gëm na làmb taxale la dañu daan jàppale dañu daan jox subvention ikiri bi di am dara mbër bu feebar di nga mën a faju ah mbër bu gaañ des fois contact sax da ngay gis mbër bu damm fii rek sama baaraam bi bi mu fi damee dammee aara Arona Diouf ministre dem naa ne ko dama baaraam dafa damm mu ngi nii ba léegi moom laay traité mënul lemu pour mu may ma ma tabax ko dafa bañ naa ma non ay kado xale yi laay joxe kado yi laa tal mais ñun nu koy jàppale te buñ nee politique ñu yaakaar ci mbër yi ah fii moo métti suñu gox bi laa la politiciens yi jàppale ñu xale yi jàppale ñu jeunes yi fii mbër yi bëri looloo leen taaral gox bi de avancé wul man sama wax neexul subvention amul maire bu koy jox équipe bi amul duñ ñu jox subvention duñ ñu jàppale da ngay mbër buy bëree sax t-shirt duñ la ko defaral ne la seen gox kenn jàppalewuñu kenn jàppale ma man jàppal laa manqué kuy mbër ëppoo ma fit dàqoo ma bëree mais nuñ la ñuy jàppalee ñoom Balla ak yooyu su ma ko amoon duñ ma raw wala heure bii roi bi téye naa ko mais aw ko. loolu mooy sama tardement. kon jàppale bi daal kon ba nga nekkee écurie Père Birahim gis sa bopp. gis naa fa sama bopp la dàkkee indi la ba pare nag gisatu sa bopp. nan laa koy gisee ndax fi ma ñëpp si fi laa dëkk mënuma ko bàyyi. te ñu fi ma dëkkal ñooñu gëmuñ gëmuñu làmb bokkul ak yeneen écurie yi esa yi déggoo ma maire HLM bi fi nekk déggoo ma ak politiciens yi déggoo ma wax la ko maire HLM du ñu jox subvention mu ngi may dégg mosul sax ñëw ci écurie bi dinaan xaaral ma seet yi mbër yi fi nekk ci lan lañ nekk amul politicien Arona Diouf nee naa la sama baaraam bi bi mu demee dem naa këram du ko ñaan pour tabax ko dafa bañ naan ma noo suba naa la booleeg diw naa la booleeg kee ba sama baaraam bi naroon yàqu kon ñooñu kan la ñuy dimbali amuñu ko bokkul ak ay ñoom amaru Gàkkoog ñooñu ñooñu dañu gëm sport gëm jeunesse xam na jeunesse bi ëllëg ñooy jàppale réew mi ñun nag fii gox bi amuñu ko nañ ko wax te dee amuñu ko ku fi nekk say mbokku nga toogal ak say poos amuñu ko. tamit. Ah. Euh, kii bi nu mu tudd bi tamit xawul nekk ci yow ndax gis nañu peut am na tolof tolof yoo nekkoon après xam nga làmb dinañ doxaar day dem. waaw ah. tamit loolu tamit taxul tamit euh, yoon bi xaw a gën a gàtt tuuti. déggoo ma lépp li ma lay mën a wax mooy nit su amoon jàppale am na yu bari du ko tal. amuñu ku ñu encouragé ku ñu téye encadré ñu ku dul benn aarama seen keneen ku ma fiy jàppale te yàlla tax mooy Kéba Kanté doomu Cheikh Kanté moom bañaluma dara suñu frère maa ngi koy sant di ko gërëm tey lu ma jàmbat mu def ko moom laa fi am amatuma waajur am samay jabar maa lañuy sant di leen gërëm ndax ñu may muñal toppee wuñ ma alal mu neex ak mu metti ñu ngi toog di ma jàppale xam mais vraiment fii su ma écrit amuñu jàppal am nañ ay mbër yi fi nekk ñu mel ni ay Modawa xam ay petit Bougane maa ngi boo yu bëri ñu fi ne ñoo xam ne ay espoir lañ ci làmb mais écurie bi déggoo ma amuñu benn doomu aadama bu ñuy jàppale fii ci gox bi muy politiciens yi di maire bi ak ku mën a doon talooñu maire da nga war a jox subvention écurie bi nga nekk sa gox jàppale ko te yàlla tax ndax jeunesse yi mën ci jariñu ji ci seen bopp mais duñ ko def taluñu ko waaw moo tax dama koy wax mu leer nit ñi ikiri HLM dafa tardé parce que ñu fi nekk war ko jàppale jàppale wuñ ko joxuñ leen loxo te du yoon waaw loolu maa ngi koy métitlu fu ma toll maa jooy. am na solo. waaw Saloum beneen bi mooy ñu gis ne sa dernier combat Saloum nga amoon fit. macha ah, allah ah. mais gars yi nee mhm. ak sa fit. Mhm. lépp dafa wàññeeku parce sa dernier combat bi nga mujjee bëre su ma jumee yow ak su njata la. waaw gis nañ fi tamit fëgala ci woon na fëgala fëgala ñu gis combat boobu tamit ki waatul. mooy li ma la wax. Mhm. su bi may bëreeg moom duma ma moroomam avance bi sax li tax ma jël ko. combat boobu entraîné wu ma sama yaay mu ngi yor jabet nekk hôpital ma woo Aline Gueye wax ko ne ko man dama problème mu xaalis ndax sama yaay dafa yor jabet te mu ngi hôpital mu jëkkati xaalis jox ma ne dama lay jox sunjata ma ne ko ba tey man koo ma jox baax na mais naa sauver sama yaay. ma jël xaalis bi di dimbali sama yaay far mu gaañu bi muy gaañu samedi boobu laa war a bëre ak sunjata ñu ravaillé combat bi 15 jours ma nekk ci dëj taluma entraîné si laa nekkee dëj ba ñu ravaillé combat bi sarax huitième jour bi. deux jours après ma bëreeg Sunjata dama dem bëree ndax daw ma entraînement talu ma ko ndax dama nekkoon ci ay tolof tolof ndax aw moon ku dul sama yaay sama papa xaw ma ko bi muy dee cinquant la am 86 la gaañu sama yaay moo ma yar lépp lu nekk ci man moo ko def ci man kon du feebar ma koy seetaan. sa combat ak Sunjata sa. waaw mook ba ci fëgg la yooyu yëpp maa ngi ci ay problème waaw. ci problème yooyu moo ma jàppoon stress bi jàpp ma may daw di faraan hôpital di këti këti di wuti xaalis di def nii taluma entraîné mais yàlla baax na mais man bàyyeeguma te maa ngi waajaat te su ñu amee jàppale déggoo ma fi ma li ma raw dinaa ko jotiwaat parce que 82 laa jur la 4 juillet 82 lu lu mu bon bon sama carrière dese naa huit ans de carrière kon ci biir huit ans yi soxla soxlawu ma bëree lépp mais su ma amee ku ma jàppale ci quatre ans li ma ñàkkoon mën naa ko amaat benn lam kase du yëngatu nañ ñu gars yi jóg jàppale waaw lu yeneen gox yi am ñun ñu am ko loolu la rek loolu rek lay ñaan na ñu gars yi joxaat loxo jox ko ñi ne sama ginnaaw ak ñi ne sama kanam ñu bokk ndey bokk bàyyi dimbali suñu gox mu jëmaat ci kanam loolu la rek. Saalum da nga benn doom bu am buy buy bëri. pourquoi bëggoon bëre. no parce que làmb neexul mais bëre rek la bëgg. te ponkal la comme man. Mhm. dégg naa kay saako ceeb da waaw moom waaw macha allah duuru maa ngi koy ñaanal yàlla na fanam gudd parce que xam ku nekk ñaan nga boo fi boo mënatul sax am ku la mhm. mu ngi jàng judo mu ngi sport boole kook jàng. Mhm. waaw. yaa am nga ko tàggat gëw ma ko. moom nag moom la bëgg mais man bëgguma doomu mbër. waaw ah, maa ngi naxanteeg moom mais chaque jour papa dama bëgg a doomu Mouhamed doomu Balla Gaye li la Balla Gaye def laa bëgg a fayu. maanaam ko bàyyil Mouhamed demal jàngi mais chaque jour papa noppi rek Mouhamed. buy tugg ci làmb ma koy daan li la Balla def laa koy ma la ko bàyyil Mouhamed. yow demal nga jàngi nga ut beneen métier. Mhm. làmb baaxul. Mhm. parce que siiw du jaami boroom. gis nga siiw dafa garaaw. mbër li muy daj au intérieur du ko wax nit. moo tax bëgguma doom buy bëree xaw ma nag ëllëg lu muy dooni mais bëgguma ko. waaw. instant bi Saloum bëri nga fekk say rakk mën nañoo wax ne bëri nga fekk ñoo xam te ni peut-être yaa leen mag wala magoo leen instant bi saalum carrière am day relancer wala day may booy chance parce que ñu bëri ne nañ euh, Saloum carrière am bu ëpp fa mu waroon yéegee. fa ko moo wàccee carrière am parce que ci kii yu bari parce que Saalum personnalité am ak dignité am ak fi ko làmb tegoon dafa dem ba benn instant doon fooyee làmb ndax am na sa ay supporters yu bari yoo xam te sax dañ dañ ma yóbbante mm. mais pourquoi làmb na nga ko joxe woon àq bu njëkk ba ak léegi daal dafa bari ay jaaxaan ay kii daal nee ñoom nee loolu lañuy laaj pourquoi Saalum ba woon mënul ñëwaat ma delloo lay yóbbante bi ne leen Saalum ba woon mu ngi ci yoon bi mais ñoom it nañ ma gestu xam ne man kase mënuma yóbbu sama bopp fii ku fi dem dañ laa jàppale nañ ñëw jàppale ma rek ñu dem waaw instant bi carrière bi da may booy chance wala ba léegi sa combat ak fëgg la mm. ndax gis nañ ni fëgg la yaa ngi doon topp naan di ko di ko crash tey jii buñ ma ko joxoon sama avance mën naa ko ko may ndax sama carrière ñu ma daan ñëpp garaawul mais fëggale bi ma daan moo gën a métti sama carrière. parce que bëy la. day yuuxu rek day yuuxu rek te nit du wax te dafa mën a wax. Hmm. moo tax instant yi wax ji laa bëgg mu jeex su bëggee na ko promoteur tëgg man bu ma fay dara barki maam Cheikh Rafal mu may ma saas rek ñu bërewaat ñu xool maa moom ku mën est-ce que door a jekki fit loolu loolu bañ ba bis ba rek ndax man Saalum jàmbu gëm borom laa man ragaluma ko dul borom. bu ñuy wax waxu fit ak ay may ree damay jàpp. parce que li ma la waxoon moo ci nekk. combat bi dama nekkoon ci ay tolof tolof ndax sama waajur moo newoon ci ay problème ba mujj na fi jugee moo ma jàppoon. mais loolu yëpp weesu na fu mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu nekkoon. nañ maa ngi ñëwaat. day ñëw dina la jaay te su ma sañoon ci fëgg la laay njëkkee. fëgg la moom ak armée taxaw waaw. fëgg la ak armée ma ma nekk ci leneen bay yàlla boole waat ñu. mais tey am na booy yi fi nekk tey euh, est-ce que pare nga pour may booy chance nga limal ma fi ñe ñe booy yoo xamante ni ay révélation lañ ñoo xamante ni yow yaa ngi leen di gis te bëgg nga leen may chance. déggoo ma man aw ma problème adversaire. man laaj ko promoteur yi. Mhm. kuñ ma booleel. Mhm. fay ma lu ko jar mu bëre. Mhm. man aw ma problème adversaire. mais promoteur yi ñu ngi lay seet si. waaw sëñ Modou ñaar temps mu may wax waxu combat mais corona bi xam naa moo tax mujjuy jot mais temps yële. proposé woon naa ko ñetti mbër. muy waaw Baye ma Ndione gaynde la neex na bëreel ko quoi parce que tu ragal. Baye waaw pare nga pour jël avance Baye yow da nga ñeme Baye ma Ndione. non dama. parce que dafa doon maak moom suñu làmb lu amaat luy neex amateur yi ndax nekk na mbër boo xam ne du ragal du daw day bëre day xeex Tidiane fay tamit gis naa ci moom ku mën a bëre la te man dama bëgg di bëre ku mën a bëre waaw dama bokk sama carrière mooy parce que man ñu mën a bëre ñi rek laay bëgg di bëreel moo taxoon boole woon naa ci ñu ma bëggoon bëree ren mbay juuf sa ko mag la Mbaye fop kon solo Mbaye Diouf. non Mbaye Diouf mënuñu bëre Mbaye Diouf est-ce que bàyyiwul bëre. non bàyyiwul. Mbaye Diouf bàyyiwul mais est tamit jarul nga jël keneen. pour mën a wanewaat tuuti sa bopp comme que xaw a xeew yi mën a wanewaat tuuti sa bopp. non ña man xeew bi yëpp mooy ñàkk bëree bi rek. Mhm. mais bu may bëree di xew. bisu tàkkusaanu Saalum rek. Mhm. daa nam na ñëw rek man naam combat léegi ma xewaat. kon ji wax daal pareegoo bàyyiwoo. kon ñi naan Saalum bàyyi na Saalum mag la. Saalum 82 mag la la 4 juillet 82 laa judd mag laa man suma man dama bañ man suma ma kàttan sama kàttan su ma sentiree ne yorotuma ko damay bàyyi balaa làmb di ma bàyyi maa koy bàyyi ndax bëgguma ku may toroxal bàyyeeku ma même bu dee 4 ans dinaa ko bërewaat ci làmb te dinaa bégalaat samay supporteurs. wanewaat sa bopp wanewaat sama bopp. Mhm. instant li may ñaan na fi feebar bi ñuy xeex mu gaaw jóge fi. Mhm. ñu ubbiwaat suñu salle sport yi ñu demaat liggéeyaat. Mhm. bëgg naa teele a liggéey. yokkaat cere dolli ñeex. ñëwaat am lu ma faj ci làmb ji. bu dul dara sax ma rus ci ñi ma bëgg ndax am na ñu mu bari ñoo xam ne su ma daanoo duñu reer. mooy ñàkk géej a gis bi ak ñàkk bërëb yi te xam nga fan yi promoteurs yi tëggatuñu ndax ñu bëri ñu ngi naan stade bi neexu leen na ci ministre bi jàpp comme stade jum bi bëgg nañ ko xam nga ñun sport lañ am quoi gars yi ubbiwaat yoon yi ubbiwaat promoteurs yi sponsors yi ñëw jàppale gars yi làmb yi xoolal ni dëkk bi weetee heure bi événement yi gaa yi ngi ci mbedd yi di werante tey combat bi nii nii ah. loolu dafa manqué Sénégalais yi dañ ko nam micro. Mhm. xam nga nañ ko nañ gars yi jàppaat ministre sport jàppale waat gars yi ubbi waat stade yi xam nga sponsor yi tamit ñëw jàppale jàppale wuñ promoteurs yi jeunesse bi lañuy jàppale ndax ñun suñu sport national mooy bëre nañu ci jàppale waaw ñu ji si suñu bopp quoi. Mm. soo gisee gars yi naan Alioune Sarr instant yi moom na dem vingt six vingt pouvoir. waaw vingt six ans de pouvoir moom wax dëgg yàlla man foofu bëgguma ci wax ndax Alioune Sarr lenn rek moom ma métti. ni ñuy lekkee xaalisu mbër yi teguñ ko ci yoon xoolal maak Sunjata maa njëkk ci géew bi seen joxe drapeau yeeg wane yooyu ah loolu ñun lañ ko war a dagg wala ñan. rek xoola amul avertissement buñ ma jox mais bi combat bi jeexee ma dee CNG nee nañ ma dagg nañ la cent mille ma ne ndax lan ñu ne ma noo da da nga xaw a tardé leen man pare naa ba toog ci géew bi di leen xaar ñuy préparer ay drapeau ak ay photo ak ay yooyu man maa ngi nee di échauffé wu ñu naan ma dagg nañ la noonu lañ ñàkkee sama xaalis ñu teg ko fan buñ bëggee lekk xaalisu mbër bi doo doo xam nuñ koy lekkee da ngay ñëw rek. ñu jox la benn kayit ne la am jël nañ ci lii parce que lii nga def te yow li nga def yow doo ko xam maag fëgg la signature bi TFM la woon ñëw naa ñu toog ci biti lu mat une de temps signature amagul dagg nañ ma ci deux cent et quelques mille ndax nee nañ dama tardé xaw ma dix minutes ma ne leen ba man ñun toog nañ ci mbedd bi lu yàgg di xaar pour ñu ubbi saali signature bi commencé noonu laa ñàkkee sama deux cent mille ndax lan. daggee daal moo niñ koy daggee moo métti te mbër bi quatre heures du matin lay yeew di entraîner jugee fa dem saal yenu ay cent kilos cent cinquante kilos di rey boppam ngir ay njabootam yow nga toog sa bureau ci lu ñàkk fay da nga koy lekk nga teg ko fan. loolu nañ ko bàyyi lekk bi na jaar yoon dañuy fayloo assurance ñu koy fay renouvelation licence dañ koy dem di ko dagg normal ku daw ci làmb nga jéggi saako bi nga tooñ nga dóor rek violer règlement buñ la daggee garaawul mais ay dagg ci yoo xam ne yow kenn du koo xam sax nu bu demee dafa ñaaw. yàlla na ko yàlla saafara. Hmm, ndax ñoomi neen la quoi duma ci wax. Hmm. mais yàlla na leen yàlla jubóole. ñu saafara ko ba lu malentendu bi dëñ. Hmm. man moom duma ci wax. yow pour yow làmb kat ma ko yàq ndax gars yi nee nañ léegi pour mbëri ñooy demande loo xam te ni mënatuñ leen koo fay ndax yéen sax yéen kaas na léegi làmb yi ci kaw la nekk yow loolu nan nga ko gis. man li ma mën a wax mooy man xaalis millions yi may dégg ci làmb ji wax dëgg yàlla ci ay ñeenti mbër koy lekk. Eumeu Sène. Mhm. Modou Lo. Mhm. Mhm. ak Bombardier ñooñu daal laa dégg. ñoo koy laa dégg bokk. mais ñun te wax dëgg yàlla nañ jur yaatal làmb ji rek. comme niñ daan def quoi mbër yëpp ci si seen bopp wala ñuy organiser ay calaf comme père Gaston li mu doon def mu bañ ko bàyyi. jàppale mbër yi quoi parce que mbër da làmb dafa métti dafa métti nañ jàppale mbër yi yemale mbër yëpp xam nga ñu jàppale leen Sénégal jëm ci kanam waaw parce que sport bu ñëpp bokk la ku ne dañ ci war a mën a gis sa bopp mm-hmm. waaw loolu daal laa am lu ma ciy wax. Ah, waaw. dama yéex a gëm làmb. bu njëkk foo laa ko jàppee quoi foo góor. joxuma ko woon àqam. waaw dama ko yéex a bëgg. mais instant nag gëm naa ni mën naa ci. parce que waa parce que li ma mën la mu nekk ci man. kon war naa ci mën a am dara bu jul dara sax ma waa defal dara samay njaboot balaa maa dem. Mm-hmm. yàlla waaw noonu moo ci gën a marqué loo xamante ni lu la neex la ci làmb soit nga am ko ci wala loo xamante ni boo toogee rek di nga xam ne lii làmb moom ko may. li ma gën a neex ci làmb mooy sama diggante ak kër jéen. ndax ndax ñëpp dañ ne woon kii mënuma koo daan ma daan ko jël bu rëy. Mm-hmm. du xaalis du dara mais dama neex. li ma gën a metti mooy fëggala bi ma daan moo ma gën a metti ci làmb. li tax dafa après wax ji ma dégg sama ginnaaw ci ci daan ma rek moo ma metti. fëggala yow kooku déggoo ma béy la. billaahi wallaahi taalaa xoolal keroog rek ñu ngi koy organiser ñu ngi koy pro maa ngi dégg est-ce que du woon yow sax. naa ko doo Saalum nga ne xanaa mu ne la xanaa da ngaa bëgg ma rey ko. am na ban journaliste. wasaare wasaare waaw ne ko Saalum lan la ko tontu xanaa da bëgg ma rey ko xoolal wax ju ñaaw jooju. làmmiñ boobu laa bëgg a tëj barki alxuraan barki Cheikh Ibra bi may yaakaar nañ ma joxaat fëgg la te buñ ma fay dërëm lépp luñ ma war a jox nañ ko ko jox moom mu ñëwaat ñu tëgg rek laa koy ñaan. kase soxlawu ma leneen mais na ma mayaat chance ngir yàlla war a sóoli loolu rek laa bëgg ndax li ma daan du gàllaaj du dara man maa soxoor juum mu daan ma. maa ko dàq ba ci ginnaaw saako yi du ko dóor ku soxor ma luppe kuu bi samay tànk takkaloo mu pakete ma ma daanu. kon xam naa erreur bi ma daan du du sëriñam du dara man maa juum mu daan na ñëwaat may ma saas ma won ko ni du ma sa morom loolu rek laa ñaan su ko mënee na ma ko jox bu dee li muy woote dëgg la nee na dama bëgg a rey du ma rey. ndax mooy yàlla na ma may na ma promoteur seet yi na ma fëgg la te xam ne combat bi taxaw naa ndax su ma fayee ma bëre su ma fayul ma bëre. Mm. pare naa. waaw. mës nga ma dama gëm nii man mënoo ma téye ba du ma bëre damay bëre. di ci des su ma daanoo dama war a daanu su ma daanee damay daan. Mm-hmm. waaw mais musique nag am na. mais man yëgagu ne fu ma jàppee ba ma yëg ni man tey jàpp nañ ma déedéet. kon daal mën nañu jàpp ne léegi instant bi Saloum Saloum ni mu luk mën nañ koo xaar ci côté Cour Baye Fall yooyu yëpp. déggoo ma damay yokkaat cere. dolli ñeex ci kàttanu yàlla incha allah muy ren di saison bii di ñëw Saloum a ngi def retour. ndax ale dafa am. te ale boo gis dafa am retour. léegi des naa dese naa retour ci làmb maa ngi koy waajal te maa ngi ñëw. kon allah bëgg naa def retour. ok incha allah te maa ngi koy waajal. ci ci ci kaw ak ci suuf maa ngi waaj. waaw euh, li ñu dese ci euh, waxtu bi euh, jeex na dañ lay bàyyi nga tàggoo tàggoo bu du tàqalikoo lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatikoo mooy ma waxaat ma sowwaat Sénégal ci tawat bi fi am yàlla na ko fi gaaw di yàlla jële xam nga ba ku nekk ci li nga nekkoon nga delluwaat ci may sant samay doomu ndey comme ñiy toog waali para ñi samay nit lañ. samay àndandoo lañ samay xarit lañ mu neex ñooy ànd mu métti ñooy ànd xam di sant sama soxna di sant samay doom waaw di beral sant nag ku mel ni Keba Kanté kooku sama seex la sama doom ndey la mosuma seetaan waaw di ñaanal Père Birahim yàlla nag yàlla guddal fanam yokk wéeram xam nga mu teewaat ci ko ci kanamu njabootam xam nga ba mu fekkee lu ëpp njootam di ñaanal Sénégal yëpp. di leen sant yéen di leen gërëm di leen ñaanal seen émission bi yàlla na waaw weesu seen njot ba xam monde bi yëpp di ko bëggee saay su ne di leen sant di leen gërëm vraiment kontaan naa dégg jërëjëf di ko remercier moom bu baax a baax moom Saloum Saloum wax dëgg yàlla nekk na koo xamante ni ku baax la ndax heure bu ñu ko soxlaa rek wax dëgg yàlla dañ koy yombalal di ko ñaanal yàlla moo xam li mu bëgg ci carrière am yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Mohamed naan la équipe bu Wassare bi yëpp kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax di joxaa gars yi dig dajee naan leen ba beneen émission parce que nee naa leen Wassare yéen yéen yéenay cliqué yéenay xool lu leen neex ñu dem def ko Saloum Saloum ngeen ñu wax ñu toppal leen ko indil leen ko beneen mbër boo leen bëggaat tamit xam ngeen fi ngeen di jaar pour ñu ñëw jëlal dañuy confiné waa ah. comme que confinement lañuy wax dañuy waxtaan ak yéen commencé guñu ah, sama séeréer bu nice di ko bëggee bu baax a baax moom Basiirou Diouf nee naa la yow bàyyi woo ma benn yoon l'infatigable di la ñaanal jàmm ak salaam di la bëggee waat baax a baax yéen nga xam te yéen ñi safoo wasaare kontaan nañ yéen message yi lépp gis nañ ko mais nag jàppaleen ni ci kàttanu yàlla lépp loo bëgg lépp loo leen bëgg dañ ciy dox ndax ay xale lañ mënuñu mais lépp daal dañ ko def rien que pour vous faire plaisir di bëggee waat nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp salum salum cantam gërëm ñeel na ko di ko remercier waat mooy bu baax a baax a baax di ko remercier bu baax baax moom ak écurie HLM bi yëpp yëpp di ko wax rek comme que nee na euh, mi ngi ñëw nañ xaar retouram bu ñu xaaree retouram après dinañ gis lépp mais en tout cas daal ku ko ku ñu naw ku ñu estimé la woon parce que su daan bëree dañuy gis ni ku bàyyi faali ak tamit xam nga kii yéeg yooyu noonu daal loolu dañ koo namm ci moom te gëm naa ni incha allah dina ñëw mais Basirou dafa am koo xamante ni suma doom la mu nekk doomu trompeur ak Ouma borom SD ti borom SD média mu nekk koo xamante ni suñu concert la doomam di anniversaire muy Souleymane Ngom ñaan ko sele di ko souhaité naan ko happy birthday to you fiston naan la dundal santan a ordonnance ni comprimé nga dund ba teral papa ak yaay ndax yow sa papa dafa baax sa yaay dafa baax moom fils adoré dundal dundal sere bu ndaw doomu trompeur yaay doomu doomu uma bégg nañ la ah, tant tem beaucoup merci beaucoup